gaz boobu nga xamante ni yàggul feeñ ci Sénégal euh, timis it loxoom nekkaat ca biir euh, Franck Timis ci boppam moom mi nga xamante ni moom moo ŋànk loolu lépp lan mooy relation tey ak Aliou Sall. Euh, franc Timis suma xarit la tamit suma patron la mun naa ko waxee noonu parce que damay liggéey pour société yu nga xam ne moom moom moo ko moom la plupart du temps wala mu nekk ci actionnaire donc mun naa wax ne relation professionnelle yooyu dañu am. Mhm. Euh, relation yoy il la kañ la parce que waxnako 2014 euh, président Macky Sall. Euh, non non c'est pas en 2014 mhm. c'est depuis 2000 c'est depuis 2011 bima ma Chine. Mhm. bobu Franck Timis mu ngi opéré déjà au Sénégal à travers plusieurs blocs dont Ben bloc African Petroleum ci liñu xamanté parce que avait aussi des activités en Chine wayé dama bëgg voudrais préciser dara bima ko déglu waté ba légui parce que ci journaux je laa jotoon lire. mais euh, dafa indi amalgame yu bëri. li ma bëgg njëkk a préciser mooy mu Seck li mu wax yëpp ci wàllu information naan diw moom moom banque bi diw moom moom lii li ci ëpp amul benn secret loo xamante ne la boo demee ci site internet yi di nga gis. banque de Dakar kan moo ko moom ak ku nekk ban wàll la ci donc loolu du révélation euh, dafa nekk ay information publique premièrement waaye li mu wax te mu nekk ay fen euh, mooy ne waa Timis Corporation ñoom ñoom moom banque de Dakar loolu euh, du dëgg amul dafay waxlu ko neex rek euh, mënu ci indi benn preuve. mais euh, lañ ci wala. amuñu non duñu déggoo li ma la wax duñu actionnaire amuñu benn relation ak banque de Dakar te xam nga difficulté bi mooy. man du ma banque de Dakar même si je suis administrateur de banque de Dakar. mais tey jii su ma doon banque de Dakar dama koy porter plainte pour que mu démontrer ma ban lien la banque de Dakar wala financial euh, groupe bi muy wax ban lien la am ak Timis Corporation du ko def. loolu tax ma ne déclaration bi mu def maa ngi jéggalu encore ci euh, vraiment ñi nga xam ne ñu ngi may déglu waaye ay fen la ñaareel bi mooy. mais ci ci wàllu euh, neen 2014 euh, ñaari promoteur yu timis euh, président Macky Sall. recevoir na leen président Macky Sall chaque jour mu recevoir ay investisseurs Sénégal. bu fekkee mais cette banque là. oui mais loolu laa la ma ne bés bu nekk président Macky Sall recevoir ay investisseurs yu bëgg a investir ci Sénégal bu fekkee nag képp ku Macky Sall recevoir rek danga am relation d'affaires ak moom wala man kon su boobaa mën nañu wax ne kon Sénégal yi Macky ko moom wala Aliou Sall ko moom li ma bëgg a wax mooy xam nga dafa ne. bu fekkee ne man li may wax dëgër naa ci naa ko porter plainte def li ma defoon Ablaye Wade euh, je vais aller dans ce sens là. da euh, dinaa ko porter plainte. parce que ci biir lu mu wax yëpp xam nga moom droit la jàng defe naa donc am na fu muy làqatu fi muy làqatu mooy du accuser jamais directement dafa naan maa ngi soupçonné ne lii am na lii am na lii am na waaye nag bu demee ba ci devant le juge dina wax clairement est-ce que daf may accuser blanchiment wala da accuser wu ma blanchiment est-ce que daf may accuser ne man dama am wàll ci gazu Sénégal wala awma ci wàll. parce que non li muy tit Fofu, euh, monsieur Sall moy que ni BDK corporation euh, BDK ñi di kon Timis corporation sen loxo dugg ci euh, ci wàllu gaz bi ñuy wax ñom tam ñi ngi ci ginnaw mais xana dégguloo dégguloo suma tontu xana kéro keroog ma déedéet déglul déglul bu baax li ma tontu té loolu la tontu woon ci télévision man Aliou Sall awma ma dërëm. ci Timis Corporation aw ma dërëm ci gazu Sénégal aw ma dërëm ci pétrole Sénégal aw ma dërëm ci banque de Dakar bien que administrateur laa fa te sénégalais la léegi man dama leen bëgg a delloowaat laaj. mais Frank Timis nga ni sànq bokk na say patron ci naka kon. Frank Timis man de d' abord même euh, Timis Corporation bi nga xam ne moom mooy actionnaire actuellement euh, moom ak Cosmos ci gaz bi ñu découvrir man sax bokkatuma ci faf employé laa ci woon waaye. bi nga xamee ne dañu Timis Corporation dafa décider jaay une bonne partie de ses euh, actifs à Cosmos donc jaay ko 60 Timis Corporation amatul woon statut Sénégal pour continuer di fi ubbi ay bureau parce nekk opérateur parce que amatul woon majorité mhm. donc amatul woon sens man may continuer de représenter le Sénégal

njënd ak jaay man maa moom tey damay jaay ku ma neex c'est dans le cadre du business amul lu ci lu ci lu ci doy waar bés bu nekk nit jaayee jëndee gerte 200 francs jaayee ko 300 francs amul scandale loolu activité normal la maintenant nag nit ñi bu ñuy wax dañuy jël fii jël fële jaxase bopp nit ñi ba mel ni dafa am benn scandale bu am fekk benn scandale amul li ma waxoon keroog te waxaat ko tey mooy Aliou Sall amul dërëm ci gazu Sénégal amul dërëm ci pétrole Sénégal amul dërëm ci banque de Dakar wante mënoon naa ko am pourquoi en tant que sénégalais. waruma mën a am alal. ci activité yo xam dañ koy def Sénégal. man loolu laay laajte mais yëpp nee ci jot ba war ci mën wax ni waroon nga ko mën am parce que da nga nek le frère du président xeyna bu fekkoon nek nga ci benen position manam ñu doon tout mal xeyna Karim wad ci yenn facilité tay ji sa position mo la may euh, xeyna nga mën dugg BDK jall ci Timis Corporation euh, gaz bi ñuy wax yooyu yëpp ci ca nopp ba nga war ci mën yëngu. wa d'accord léegi man dama bëgg a wat laaj bi léegi man en tant que rakku président lan la am droit Sénégal ak lan la fi droit est-ce que parce que rakku président la awma droit dugg ci benn activité privé donc dama war a toog suma kër état bi di ma fay salaire di ma dundal wala est-ce que dama war a nekk chômeur buy yelwaan wala buy def chantage nit ñi pour ñu koy jot xaalis. attends xëy na yenn activités yi ñëpp duñ ci jot xëy na dañu jàpp. waaw mais loolu seen euh, affaire la mais man position mooy tax a xam ni euh, fii niñ koy waxee gaañi waxee kaaña nga fa euh, dugg ceeg yooyu parce que ñenn ñi ñu ngi ne xëy na sax est-ce que doo kur ci président ndax njortoon na na ni lii yëpp am na mu la nga. loolu saaga la c'est très grave li nga wax ni c'est très te loolu la Birahim Seck wax il faut que ñu arrêter di sur suma personne di attaquer le président de la République C'est extrêmement grave te xam nga dafa yomb yor ce micro wala yor journal, journal ngay toog ne maa soupçonner la corruption wala maa ngi le blanchiment parce que diw rakk diw C'est lâche parce que waxu loolu leer moom mi koy wax na wax lu leer na wax carrément que le président est corrompu wala Aliou Sall est corrompu wala dañuy jéem a blanchir de l'argent. Tu xam nga loolu bu ko waxee rek moom dafay devoir wane preuve waaye maa ngi xalaat ne comme lii ak lii ak lii am na lii war na mën a am loolu mooy jaxase xelu nit ñi te li ngay wax ay fen la dara amu ci. mais xam nga ni ñuy waxee euh, monsieur le maire ku ku Ndobine récemment boo séenee. waaw ah, mais loolu problème mu ngi rob kaawu Karim Wade tey bu ñu ñëwaatee gisaat affaire famille du ci tam nit ñi a xam seen xel war na mën. ça ne me concerne pas affaire Karim Wade li ma concerne mooy affaire Aliou Sall. affaire Karim Wade concerné wu ma li def ak responsabilité wam lolu affaire am la. kon amoo ben privilège tey jii boo xamante ni euh, position président Macky Sall may na la ko yow en tant que. mais bu ngeen ko xamé wax len ma ah, dañ lay laaj. mais man mangi mettre au défi de qui que ce soit na ma wax privilège bi Aliou Sall am ko parce que rakou président la. Mm-hmm donc affaire bi dafa yomb aussi. dafa yomb. Euh, ci ci euh, euh, Patrick Correa ñu prête la tu lepp ya que tamit di société feulé que États-Unis dit que ci énergie. non non non non ça c'est du mensonge société bu Sénégal. ben société bu ñu créé won il y a deux ans et demi bu tudd Sahel Aviation société bo xam mosul am autorisation Sénégal mosu fi am licence donc mosul am activité donc lolu amul sens ba paré may léral né euh xeyna semaine projet sax dina créer waat benen société c'est normal moi je suis un homme d'affaires je crée des sociétés et je cherche des opportunités ma liguey ji lolu ku mu naqari vraiment di nga rey sa bop mais lolu dina continuer def quel que soit par ailleurs situation politique bi lu muy joxe je suis un Sénégalais et je jouis de mes droits. mais Patrick Correa n'est pas donc euh, Aliou Sall mu mais Patrick Correa naka la mun a. nekk ah, Aliou Sall non la di genre. Euh, mais prête non xam nga loolu laay wax ne dafa yomb c'est vrai que dafa yomb nga jël sa micro ne waaw gis naa diw ak diw donc yaakaar naa ne lii moo am te fekk amuloo ci benn preuve loolu irresponsabilité la et man li may wax mooy dama yërëm forum civil. parce que forum civil tolloon na foo xamante ne quand même dafa amoon une certaine crédibilité mais bu ñu yegsee ba un énergumène ñëw di utiliser sa position de membre di forum civil di def ay déclaration yo xam amul ben fondement lu rek lo xamante ne xaw rek nga bëgg pour accuser l'individu loolu il porte tort au forum civil il porte tort à la société civile te manki responsable aux irresponsables du parce que aussi actuellement le journalisme ñu bëgg dafa yomb trop nous day ñëw taxaw saga wax devons ko neex diffuser ko te pourtant si nous porter plainte on est obligé de passer par le directeur de publication tey di, dama nar a plainte Birahim Seck parce que li wax il faut que je leeral ko mais vais porter plainte les directeur de publication pas parce que dama leen créer le problème parce que je suis contre la liberté mais parce que loi en matière de diffamation boo bëggee wane nit ki il faut que jaar ci directeur de publication Donc, responsable des journaliste aussi il faut que nous leeral ko. mais responsabilité moi, je nga vous fii pour l'air ko parce que nous gis ko euh, ci boobu nga gis ne nga forum civil amone na crédibilité yow kese nekkoo fi euh, chaque fois ce tour du dellusiwaat euh, ci ci yenn mais parce que man maïra, rakku président lolou dafa yomb xam c'est très facile d'attaquer le frère du président et euh, les médias aiment bien ça ouais gannaaw lolou dafa amul ben deug bu nek ci ginnaaw buñ ko amé nañ ko c'est-à-dire que buñu amé ben espèce ou preuve xana boog ku actionnaire ci banque wala am pétrole wala am gaz dana feeñ ci na ngay dundee ci say auto wala ci ci sa train de vie wala nga am compte à l'étranger wala nga am société à l'étranger luñ ci am la wax je mets au défi qui que ce soit mu woné preuve bi gëna a ndaw que man dafa am luma loubal wala dafa am luma luma jot luma warul jot du deug la wax. Euh, bu weesoo homme d'affaires euh, ci walu politique bi tam euh, yaangi ci maire de Guédiawaye sank wax nañ ko président de la république jot na avis conseil constitutionnel wañi mandat bi 7 ou 5 ans yow loo loo ci loo ci ànd. non débat bu wesso mais sa xalaat rek en tant que débat bi weesu na c'est-à-dire que avis comme jox nañ ko président man xaw ma lu ci nekk. Mm. waaye suba bu ñu waxee lan moo ci nekk man loolu lay ànd.

ab Sénégal bu sénégalais la dafa bëgg président de la république nga yeewu nga ne da ngay utiliser sa nationalité française porter plainte état du Sénégal en France loolu trahison la benn. ñaareel bi li ñuy wax ci Ablaye Wade du question bi nationalité question parjure la maanaam euh, ba muy nekk candidat dafa taxaw wax ne nationalité sénégalaise rek la amee bu fekkee ne loolu du dëgg c'est-à-dire bu fekkee ne ba mu koy wax xamoon na ne am na nationalité française te nëbbu ko loolu la ñuy wax ne parjure la mais reprocher wuñ ko le fait que mu am ñaari nationalité parce que loolu kenn mënu ko reproché kenn mm. loi bi moo ko mayee waaye loi bi moo interdire un président de la république di am ñaari nationalité mais comme ni ko ñenn sax ci ñoo xamante ni eh, seen i farandoo lañ waxee est-ce que jotul ñu bàyyi ko xëy na loolu débat boobu dafa ni ko waxee dafa weesu président Macky Sall xam nga aussi dafa yomb ñu may ko mu euh, président Abdoulaye Wade ñu bàyyi ko mu noppaliku ñu jublu ci yitte askan wi xam nga dafa am loo xam ne commission yooyu dafa am loo xam ne dafa yomb ci presse bi c'est-à-dire que barki démb Birahim sekk nee na man sàcc la président sàcc la kenn waxul dara ma ñëw fii ne Birahim Seck dafa fen ñëpp tourné ne ah damaa indi arrogance donc ku nekk ci pouvoir bi amoo droit riposter bi ñu lu nekk la Ablaye Wade ak PDS yekk Macky Sall da ngeen di tàccu rek parce que dafay neexal débat bi mais il suffit que ñu reprocher lu ndaw Ablaye Wade ñu ne waa dañ koy victimiser au nom de quoi parce que on est au pouvoir amuñu droit riposter wax l'air. affaire bi loolu la Ablaye Wade aussi du mag rek mag acteur politique le, boo des dirigeants diriger ay manifestation di policiers yi di di di wax ay nitam donc du rek mag du rek màgget bu doon statut boobu rek du ko